Euh, maître El Hadj Diouf de keroog dama ko déglu hmm. maître El Hadj Diouf euh, mel na ni yow daal euh, la nga xamante ni bi waxoon nga ko keroog fa nga xamante ni fii mooy soxnaam sax amoon problème hmm. maître El Hadj Diouf dafa mel ni weddi na ko daal dina lay baddax sax wax yoo xamante ni bii daal am na yum la sànni yoo xamante ni bii moom jekkut sax day parce que li tax sax teguñu vidéo bi wax ci maanaam dafa xawut a rafet. waaw yoo xamante ni jëmale na la ko. Hmm. noo jangate waxu maître radio Hadj eh, Diouf. xam nga maître. hmm dama koy jàngat ci ñaari aspect moy premier hmm conférence de presse bi. waaw. Eh, ak euh mom ci jëmi bopam lim doon wax. parce que xamna naa ne li ma ko waxaloon noonu. Mm-hmm. su ko ko journaliste bi laajutoon du ci wax. hmm te biñ ko ko laajee tamit gis nga ne eh, danaka leralu ci dara dafa wax ay waxu saga rek dam yonam hmm nema traité mané ma damay fen. Mm-hmm. Euh, foofu nag li ma ciy jàngate rek mooy maître ñu bari dañoo defee ne dafa dof fekk dofut. Hmm. parce que bu fekkee yow ci Sonko rek ngay wane sax ndof. Hmm. di saaga waate naan ay dëmm ay naan deret ak nangam nangam nit ñi di yuuxu di ree. Hmm. te yow sa njaboot. bu ci dara laalee. da koy nëbbu fa ca roog seen. doo nangu nit yëg loolu day wane ne kon maître dofut mi ngi calculer bu baax li muy def day tànn adversaire am. te man maa ko waxaat maa ko wax. soxnaam su sant Diop tàmbalee M sant Diop. dem ñettelam di doomi Daba juuf meru ngin gi neew. soxna si maître El Hadj la ñettelam la amna ñaari doom. suleyman neena ko yoron bayiko ko mu ko. am ci ñaari doom ak mom waaw tournement biñ koy giiñ IPRES la. IPRES. IPRES waaw mom ak benen xaritam bu jigen bo xamne ami d'enfance am la. tur wa tàmbalee enn mu sant Dia. Hmm. keroog alxemes ñu ngi ko waroon a attee salle numéro trois. Hmm. waaw correctionnel. Hmm. fa lañ ko waroon a attee. dégg lu leer la. léegi kon leer na. waaw su fekkee dafa bëgg weddiwaat bu weddiwaatee. ma jàllaat te man yoruma benn dossier boobu donc bu ma neexee bàyyi fi boobu dem ba bu sali. waye nak amul problème dossier bu sali non grawul man duma yureku yureeku nak sa buma la sané dara xamal na yorna lu lu wër dam né la hélas Hadj Diouf mënta wéddi né soxnam dañ ko top ci détournement hmm mom ak benen xaritam hmm kérok dañ ko worona atté atte salle numéro 3 correctionnel hmm soxna ci mi ngi sant Diop amna ñaari dom moy ñettelu soxnam hmm nako wéddi hmm voilà léegi nak luñ tuumal Sonko deug la waye buñ tuumalé sama jabar bu ci kenn wax loolu mooy problème bi Sénégal. waaw voilà. loolu problème voilà. waaw mais à part comme que euh, nga ay si mais keroog sorti Maître El Hadj bi li nga xamante ni bi wax na ko maanaam lépp lu Sonko tegoon dafa mel ni dajji na ko teg fële. Hmm. noo jàngatee conférence de presse bu Maître El Hadj Diouf bi euh, ci yeneen yi nga xamante ni bi Ousmane ko waxoon na ko ci wàllu deret nee na kenn laaju ko deret nee na mbir mi ADN lañ ko wax waaye du ay deret. duñ ko wax yooyu léegi mbirum ADN bi. Hmm. laa bëgg njëkk a ñëwaat sax ñëwal. parce que lépp ci waxu Maître El Hadji Diouf rek lay delluwaat. waaw tey. Hmm. man bokkuma benn parti. waaye man na ma nekk tey chroniqueur APR. Hmm. dem bokk APR man. Hmm. te man damaa fexe ba convaincre Bassirou Diomaye Faye. convaincre Almalick Ndiaye. convaincre raale Birame Souleye Diop ak Maître Tall yóbbaale leen. ñu dem APR. parti Pastef. mën na maa wax ba def ko mouvement dooleel Macky pour deux mille trente cinq. mën naa ko. mën nga ko waaw. jël Ousmane Sonko wat ko wat sikkim bi wat bopp bi dagg weyi ah. jël ñaq wi jël deret yi yëpp leen. Hmm. waaye nag benn condition rek. muy képp benn condition rek laa leen di laaj. muy te loolu moom bu fekkee bu fekkee yoon la. moo war a gën a yomb tàngal bii li ma leen di wax. suñ ma ko hmm. defalee. moo gën yomb tàngal bii. Hmm. suñ ko defee. ma def li ma wax dinaa leen jàppal Sonko ànd ak samay Baay Faal dem këram yeew ko yóbbul leen ko ca kaso ba. wat ko jël ñom biram su lay boy pastef yépp dugal pas dugal duggal APR xam nga lan la muy lan moy ñu jox ma benn yoon ci aduna fi ci Sénégal ba Sénégal di Sénégal ak mhm. nit kuñ masa tuumaal viol viol waxuma nak viol ak grossesse waaw viol rek mhm. nga xamna dañ la dang ma violer rek mhm. nga ne violé wuma la waaw ñu nit ki demal nga def test andi andi ñu def test suñ ko mësee demandé nit benn yoon ci ci ci dossier ma dem ma def lima wax ma dem APR Mm. waaw benn yoon ci àdduna laa wax de àdduna wërngal këpp mm-hmm. mosuñoo gis nit kuñ tuumaal viol viol mm-hmm. naan la demal indi sa deret wala demal indi say tiflit wala ñu ne wala nañ ma wax ne ma mm-hmm. diw sàngam ah. dëkk dëkk sàngam tuumaaloon nañ ko viol defloo nañ ko test ADN waxuma def na ko defu ko defloo nañ ko ko rek defloo nañ ko ko waaw kenn mosu koo defloo nit ci àdduna saa boo déggee test loolu pour doom moo ko tax a jóg maanaam doom lañ yaakaar na ne doom da caa juddu. waaw ñu bëgg doom ji xam kan mooy baayam. Mm-hmm. ñu koy def loo test. Mm-hmm. d'accord waaye wiyool leeral wiyool rek. Mm-hmm. kenn mësu cee wax doomu aadama ne ko kaay dem. indi sa te indi sa indi ñu defal la test. léegi lu tax léegi leeral wiyool. lañ daan àttee. waaw nit ñi 1960 ba tey. lu tax ñu bëgg koo teggi teg nee. waaw di teg beneen loi boo xam ne kenn mësu koo wax doomu aadama. lañ daan àttee nit ñi nañ ci àttee Sonko. Mm-hmm. su fekkee mas nañ ci àtte nit nañ ma ko wax man ma dem APR tey. daa mm-hmm. ngi dégg. waaw loolu noonu la demee. Mm-hmm. kon viol bi man maa la wax ne la ñoom waruñu woon a taxawak ak Sonko sax naan ko deret. Mm. parce que doomu amu ci xam nga lan moo ci indi prélèvement yi. lan moo dafa gën loo woon ne. waa waa ñoom Serigne Bassirou Gueye ne leen damaa ëmb. dafa ëmb loolooy dëgg da ko waxoon bañ gëm ko. ñu doon xaar doom juddu mm-hmm. ñu def prélèvement ñi dem bam yag ëmbu ba disparaître mm-hmm. ñu continuer ñëc ci ñoo la gëna xamné viol amul kenn ku ñu giñ viol naan la demal andi ñu def test amul mm-hmm. loolu musta am lutax lu musta am ñu bëgg ñëw diko tax sonk wala da am luñu bëgg ci dareeti jàmbur bi ah, hmm? wala da am luñu bëgg ci dareet ji da am luñu bëgg xam nga loolu waaw lu mata bayyi xel la moy bu doy weyal dong dong mom waaw manam lolu amu ci legui nak waaw hélas diouf neena aji sar daf don def hmm pour génn motax mu wax ne dañ ma dama waaw ah, pour génnoon voilà pour lecc waaw lolu la mettre legui ki ñeuk a mbirum ëmb bi ñukoy wax madame Cissé mhm. koku du patron dedet avant avant avant avant avant coow avant pelente bi sax neena ko man dama ëmb sonko moma ma ëmbal ba koku woote ci pap Alé wax ko mhm mu joge ci legui li mata baye xel xam nga man dañuy top sax ñun toujours bi viol mais nañ ko nañ ko analyser paye ak maire yi. Hmm. waaw paye ak maire ak di analyser. moy dama yow man dama koy jël exemple Omar Gueye. waaw dafa nek ci kër. waaw ak soxnam ak hmm. ñaari hmm soxna ci di liggey ci lettre ak dag yi wé ak yu mel non ak raxasi tank waaw dem bam mu liggey bi meunatu ko def mom dongo mu wut ñaari jank Hmm. andi len ci kër papa pasar mermos deglu mo bu baax Moussa Ba Baye job Baye Bari yeen lay waxal nak lii may wax ni yeen ko mom deglu len mo hmm. bu baax ma ma wacce len tapale yi fim nek legi nak ndaw si manam Omar Gueye wut ñaari jank ñi jappale jabaram mu ngi ci kër gi ku dugg nak ci mom ngay jaar nak li la bëgg hmm. dem fay ñi defal la bo boo mu inke sa xaalisam té ba yalla def soxna sa ëmbu nek ci hôpital ba am doom nekk ci hôpital ba ñu daldi di ne ben ben ben guddi am ku ñew daal ne na ngeen def ñu ne ngi fa ana soxna ci ñu ne ko soxna sa da nek hôpital mu ne ah, ba jàmm ñu ne ko dafa am doom mu ne ah, waay kon yalla nako ko tanel way kon dama ñu ne ko xale jigéen yaa fi mm-hmm. mu dem ci ñaari xalé jigen yi ne leen acca dama bëgg ngeen raxasal ma samay tank wala lamuy def lu mm-hmm. ñu bokku dugg ci néeg bi ñaari jigen yi ak genn goor gi nek fa ba lañuy def mat mu genné xaaliss fay delluwaat ci borom kër ga ne ko ah, kon baax ngi dem euh, nuyul ma soxna si. Mm-hmm. bul na ko yàlla taneel waay daal dem. Mm-hmm. bi demee jànq bi. Mm-hmm. jël na xaalis bi ko fay ñëw ba ci patron bi ko am. waaw fi jóge léegi moo ma ko fay. delluwaat moroomu jànqam mi mu nekkaloon jox ko mille francs. ne ko ki fi jóge léegi moo nu may vingt mille. waaw yaa moom dix mille yi. ba tey dara xewul temps normal de. mu jékki-jékki xool ba xam ne jànq ba nekkatu fi rek. waaw mu jël saag yi ñu wax ci yére yëpp na tekk mm-hmm. daal di yërndu yërndu yërndu yërndu ba gis na boroom kër gi nekku fi rek mu pëccati ko daal daw mm-hmm. Mm-hmm. génn daal dem léegi dangaa nekk ci kër nit fekk la fa jël fetal teg la ko sa yéeg yow te neexu la nga di ko gis muy tàggoog boroom kër gi di dem waxoo dara xale bi nga nekk noo ci biir kër gi néew ko kii de tooñ na ma bi mu démé bi nga bëggé dem doone ah man de nangam ak nangam ma fi nakari won hmm. ma ngi dem hmm. waaye da ngay yërndu borom kër gi di daw loy daw waaw kon fofu la tappale njëkk a ben, hmm. benn daw na dugg ci loxol saa njoogu waaw ñu par exemple rek da né la ah man kat damaa nekkoon ci kër ñu jël ma sey ma tek may fetal sa njoogu bu doon yow bo ne ko ah fo dëkk nga koy wax waaw mané la sakkar kër nga ne ko andem wala am nga sa numéro patron waaw andi ma woo hmm. wala ah, kan moy sa bay diw anamu jox ma numéro hmm. am nga mag ju gor jox ma numéro an sa tante jox ma numéro an sa yaay jox ma numéro hmm. waye nit nit njaay la wax de ak boni gu jigen du joge ci keur waaw fekk la ci mbedd ne la dañ ma giiñ dañ ma fekk fama ma doon liggéeyee ah. jaay ma doole sey ak man nga ne ko tias yobu ci psychologue kanamam di yeurndo ko xool ak defi rapport te borom keur gi signalé woo ko avertise woo ko woowoo ndey xale bi woo bàyyi xale bi woowoo nijaayi xale bi woowoo kenn. Mhm. boroom kër gi nga xam ne. néeg bii la toog. néeg bi mu taqalool fi la yëf yi xewee. moom daa xëy ubbi rajoom rek. dégg ñu naan kër Omar Gueye. waaw dañ fa doon indi ay fetal démb am kuñ fa siif ba dem ba dem ci kaso bi. Mhm. lii mooy li xew. Mhm. est-ce que xel mu sel nangu na. nit for doomi jàmbur. yóbbu ko mu dem ca synagogue ba. yóbbu ko moom mu dem defi plainte. Mhm. dégg nga ak ku toll ne Ousmane ko bu xale bi xamul dara ba bëgg koo plainte. Mhm. war nga ko ne ko wool say bokk nga waxtaan ak ñoom ndax ki ngay plainte kat. Mhm. buru bi daa bari ci moom. man gisoon naa waa ju jaayi foto waaw ne ma woon damaa bëggoon a plainte sëñ Moustapha Sy. waaw waaye damaa dem ci gendarme bi wax ko ko mu ne ma toppal fële. <laughs> xaw ma lu xam naa garde yaa ko dóor xaw ma mu ne daal sëñ Moustapha laa doon plainte ba ma demee ne garde bi daal ba ma demee ci gendarmerie bi ne ko sëñ Moustapha si daal laa doon plainte wax eh, booy toppal fële <laughs> waaye léeg-léeg ah. nit di sóobu ci koo xam ne bu ko xamut sax ndax xaleem nga ko ah li ngay dugg nak da jar nga waxtaan ak say mbokk waaw te indi sa bay ñu waxtaan ndax da fay jur ciow mm-hmm. waye jël doomi jàmbur ci mbedd waaw yobbu ko ci gynécologue ñu ubbi kanamam mm-hmm. defi rapport mm-hmm. nga yobbu gendarmerie mu plainte nga yobbu tecc ci sa kër booleeg say garde ba noppi taxaw naan mbir mi lepp normal na du deug lool lool ko ko waxit ya nga wax loola neexay legi nak dama la bëgg a ben affaire muy laan moy aji waaw mom waxon na ne da ëmb wax na ko ndey xadi wax nako tantam sour hmm. bi muy def conférence de presse bobu nekatul keur Ibrahima hmm. pourtant bobu ba léegi mi ngi continuer woon deugane dafa ëmb waaw fétali lan motax Ousmane Sonko dem ba ci doyen de 6 waaw te laaju ko fétali waaw laaju ko ah? hmm laaju ko ko parce que parce que léegi fétali yi bokkatu ci waaw aji sar ah bokkatu ci kay kenn hmm. tuddatu ko ci aji sar hmm waxon na ne euh, dafa ki num mu tuddati waxoon na ne dafa verse waaw ah euh médecin bi mu ñëwee. waaw dafa weddi loolu. pourtant. Mhm. Barthélémy Dias. waaw Barthélémy Dias dafa dafa dafa kii dafa dafa dafa fetal. Mhm. dafa am nerf yu ñëw këram. mu génne ñaari fetal ñu gis ko nii muy tiire. di tiire di tiire di tiire ba mu yàgg. am ku dee. waaw Sénégal gépp daal ne moo fetal waa ji mu dee. waaw bi ñu demee wooyi expert balistique. waaw bi mu ñëwee daal ne bal bii ma fekk ci waa ji. Mhm. ak bal bi Bart Lamine bokk yoroon bokkunu mhm. ñëpp ne kon Bart rëyu waaw parce que expert wax na mhm. Adji Sarr jëlee nañ ko ci kër waaw yóbbu ko ci expert mu xool kanamam ne kii leen wax ne dañ ko doon sëy fukki waxtu ak juróom benn sëyu ci bu dee daf laa wax ne tamit kookoo jël ndawam at yii amu ci ndaw comme njaga kii moom dee la def dee daanu dee teewut bi expert bi waxee dañoo nangu muñ waaw kii nag deewut defut dara expert bi wax ñu ne expert bi lu mu wax kenn du ko fi jëlee manam hmm. loolu mooy tappale léegi dama laa Elas Diouf laay jëlal gi Elas Diouf ak Macky Elas Diouf ak euh, Sonko xam nga luñ jote luñ jote looloy exclusivité bi Elas Diouf ak Sonko luñ jote Sonko sax xamul lu Elas Diouf ah Elas Diouf dafa dem France hmm. ñu accusé ko fa viol waaw Hmm? Hmm. harcèlement sexuel. waaw juge ko daan ko. Hmm. juróom benni weeri kaso. waaw ko xaalis. Macky Sall lijjanti ba mu ñëw. bi mu ñibbisee. temps booba El Hadj la woon. waaw bi élection deux mille dix neuf yi jegee El Hadj bëri coow. règlement avocat fii ci Sénégal loi bi xam nga lan la wax. buñ la daanee dañ lay rajee. dootoo nekkati avocat. suñ la masee daan avocat buñ fi daan da ngay génn baro bi hmm. Macky Sall tambalé chiffre dossier pour pour radio El Diouf dootu nek avocat El dem jébbalu ci hmm. pour sécuriser boppam bañ ko ko bañ ko ko dàq ak bañ ko laal dossier motax muy jaamu Macky Sall hmm. ci sonko mom fi ne sonko ak jaamu Yalla la ci la ko jàppe ak jaamu Macky Sall la ko jàppe <laughs> fu mu toll di wone ne ko mako gëna sonal quoi bayima ma nek ci baro bi pour pour dibbali El Hadj Diouf même Macky Sall bu laajoon troisième mandat yaakaaruma. Mhm. mu contre ko. Ah parce que bu ko contré Macky raje ko. Hmm? waaw tam kenn duma weddi baro Sénégal bii képp kuñ daan avocat fuñ ko daane. Mhm. rajo El Hadj Diouf nag daan nañ ko ba pare ba mu accepté ne moom daan nañ ko. Mhm. ba yoon daan ko dañ ko waroon a rajo baro bi. Hmm. li ko fi bàyyi nag mooy Sonko mi mi Sonko. Hmm. waaw. loolooy problème bi loolooy problème bi. d'accord waaw mbirum aji saar nag jaaxal na ma. parce que mm. man damaa gis mu nekk dossier boo xam ne. waaw ku mer rek daan ne danaa wax. <laughs> ku mer waaw. waaw ñi waaw ku danaa wax li ñuy waaj wax xaw lu mu nag. waaw <laughs> doy loolu jar naa li jënd. waaw ku mer rek na am na lu may bëgg a wax de. te aji saar wax na ne yor naa ay vidéo. Mm-hmm. dañ na. dañ na waaw. Mm. kon nag gis naa Daouda Mine ca TFM. daawda min muy faral aji saar ba yàgg mu ne waaye bu fekkee dañoo fen ben yoon waaw dañoo wara a bàyyi hmm. lim ñu waxoon day fen hmm. aji saar moo waxal boppam ne man yor sonko waaw na video génne bu ko génnee rek jeex na hmm. aji saar moo wax ne dañ ko teg fetal ba Elaas Diouf toog TFM googu nga toogoon yow daaw damin di ko wax waaw dëggut dama ëmb du dëgg damaa weers du dëgg dégg nga ñu nekk ci kër di fa liggéeyee ñi signé fa contrat war a fayee ko weer ñu violé la ngay borom kër gi waaw kenn mësu koo gis. nit mag buy wax day wax lu leer nañ mhm. voilà jaajëf. Cheikh macha allah euh, jàngat boobu am na solo defe naa ne tey euh, paa yi nga xamante ne bi ak maire yi faram fàcceel nga leen yëf mhm. euh, gën leen koo wàcceel ci niveau boo xamante ne bi gën naa terre à terre mhm. dañuy ñëw nag Ousmane Sonko tey. gën na def na sorti hmm. suivre nga sorti Ousmane Sonko bi def na ay révélation ci ay point yu bare bare no jangate sorti bu Ousmane Sonko wa sorti Sonko bi hmm. euh, len rek mo ci lu bes tak moy dem na ci barob bi ni moy moy moy ah, ki bi ki bi até magistrat yi hmm. mu porte pelante fa Serigne basirou Gueye basirou Gueye waaw euh, dem cour suprême porté ko fa pelante ñu suivre ko ñu ñak ko suivre loolu affaire seen affaire la te yaakaaruma ñu suufur ko waaye li am solo te am solo mooy day wane ne acte mhm. mooy moom dafa doon wax ne dañ koo comploté léegi leeral na ko mhm. te fépp fu mu dem di pelente tamit document ba mu fay bàyyi mhm. ko ko ca gis doo nelaw parce que loolu amul menn réew ci àdduna mu toll foofu ci caay-caay ak ak ak ak ak mooy nit ab sénégalais pelente devant le droit nga jël li la neex nga di ko dugal ci ay waxam di changé ay PV dugal li la neex. Mhm. naan dindi lii jëlal lee di jël ay photo yu film x ay jigéen yu xaw ma fu mu Basiirou Gueye bàcculooyu bëtam waaye war na war na ma ko jàngal. <laughs> xool xale yu baax. Mhm. taf ci biir affaire bi. naan defal ma fii dindil ma fii mel na ko yor sab sab siso di dagg. ba yàlla weer la. Mhm. kooku loolu bu maanaam même buñ ko poursuivre lut pelantam. bu pelante bi bu amut suivi sax baax na. parce que dina tassaré mbot mi ba ñepp gëna xamné xam ne du dëgg lu ci nekk du dëgg du yoon hmm nga lolu ben la ci waaw bi ci dess moy wax na ci affaire pap ale ñaa waaw euh, xam nga ben pa ab magum taxi man daf ma yebon ci lu yagul dara ni ben mhm. timis bu ma amoon génnoon jël taxi mhm. mu xamé ma nuy waxtaan mu ne ma nak dama señ baara karim wad dañ japp hmm nit ñi naan bayi leen 66 def liggéeyam bayi leen 66 def liggéeyam Mm-hmm. nee na ñu dugg sistis dag bob bi genn ñu ne sistis def na liggéeyam tek waaw ñu japp khalifa sall ñu ne no bayi len sistis def liggéeyam bayi len sistis def liggéeyam ñu dugg dag bob bi tek hmm mm-hmm. na ñu jappat lu bëgg japp sonku sonk pa bi nee legi liñ wara wax ma bayi len séras def liggéeyam bayi len séras def liggéeyam bayi len séras def liggéeyam parce que nee séras mom <laughs> sistis mom nee séras la ci moy séras séras opposant yi la ku dugg ñu dag sa bop waaw léegi nag wax na ci affaire Pape ale Niang te xam naa ne sax man loolu moo ko taxoon a gën a génn. Mm-hmm. parce que Pape Alé day ko am solo. Mm. gis naa journaliste yi nag niñ ci taxawee am na ci ñoo xam ne taxaw nañ ci. waaw mooy ku mel ne Pam Ngagne Ndiaye. Mm. ku mel ne Babacar Touré ay ñoom man sor Diop gis naa niñ ci waxee. Mm-hmm. donte nag. Mm-hmm. toog di dénoncer nii doyut. parce que presse mooy incarné ne mooy quatrième pouvoir. quatrième pouvoir bu dee euh, l'exécutif yaakaaruma ne yomb nañoo tëj. Mm-hmm. législatif mooy député yi am na loi yu leen aar kenn neexu ñoo tëj. Mm-hmm. si di gère musuma leen gis sax kuñ ci tëj. Mm-hmm. avocat ak ay magistrat ak si yii kenn tëju leen. kon yéen bu ngeen dee quatrième pouvoir waroon ngeen a xeex ba am loi boo xam ne ci sa biir liggéey. mën nañ la cee daan lu ba mu des kaso. parce que da war a génn di informer nit ñi. parce que Pape Alé cent cent nangam personne ñi nga abonné ci sitam di ko xaar mu informer leen. boo ko téyee da ngay da ngay indi rëq-rëq. waroon nañoo indi fexe ba xeex ba loi am boo xamante ne presse bi nit buy def liggéeyam ci journal journal maanaam ci domaine tas xibaar duñ ci jàpp kenn même bu dee dañ lay daan ñu daan la mm-hmm. dégg nga beneen daan bu bokkut ak kaso mm-hmm. léegi presse bi nag ñoom seen dañuy deltu gannaaw mm. waaw dañuy deltu gannaaw bu baax a baax biñ fi xëyee jàpp fi biñ fi euh, waa Sud FM entrosé woon Salif Sadio nguuru wàdd xëy jàpp waa kër Sud FM Hmm. dafa meloon ne tey keroog jant bi daa war a wadd parce que jàpp nañu ay journaliste euh, nu mu tuddati Boubacar Kambel Dieng bu RFM bi fi demee ci Star Amitié bii ñu dóor ko fa ay liif waaw booba damaa def woon ne asamaan si day wad hmm. parce que journaliste lañ dóor hmm. bi ñu fi jàppee Madiambal Diagne nit doowul dégg parce que dañoo jàpp journaliste. Mm-hmm. léegi nag Macky Sall benn affaire la réussir. mooy daa fexe ba diffuser journaliste yi. Mm-hmm. journaliste yi dañoo jaay seen bopp ba noppi njëg gi laa xamut fu mu leen aw. ah waaw jaay nañ seen bopp te xaw ma fu njëg gi jaar. lu tax la ga Sadio Mané bu gaaño waaw édition spéciale. Mm-hmm. làmb ah. édition spécial ña ngay woo Sonko édition spéciale. dundu gu seer gi mas nga cee gis édition spéciale. kenn mësta gis ñi def ci dundu gu seer gi audition spéciale nax yi état bi di nax nit ñi nan bu kilo mburu 175 la doon jar wàññi nañ ko 175 <laughs> journaliste yi ko xujj di xolé Macky Sall kérok cérémonie ba la muy rëy reey reey reey reey reey reey la muy reey reey reey reey reey mm. wallahi la sim wenn juroom la bañ ci ciép no parfumé bi wenn juroom <laughs> juroom ben juroom da <laughs> Macky Sall doon annoncer nit ñi na wàññi na ko ci ci ciép bi waaw te juroom woowu pour ñu wañi ko mm-hmm. da ngay wut ay gendarmerie boutique bu nek ben gendarme taxaw fa pour bu ko buñ ko jaayew non ñu japp waay <laughs> deng nga luyaas bi euh. Matna taxaw jangataat ko ndax dafa sonal nit ñi deug la mm-hmm. waay nak du looy ñew taxañ taxañe ko naan mm. def naa ko ni def ko ni dedet mm. da ngay wut siri siri siri losma siri jiri waaw suri losma manam ben këru losma bo xamne kuy jeun kuy luyé da ngay ñew wut fichier dañ lay jaay fiis nga dem remplir nga xam li ci loi bi tënk ñu respecté ko suñu amee problème dem ñu àtte ñu foofu mhm. loolu lu technique la loo xamante ne mhm. bu fekkonte ne dix ans yi Macky Sall yëpp loolu dong la réglé mooy problème loyer bi mhm. def na résultat parce que dafa sonal sénégalais yi waaye du looy toog rek tijji say micro di wax muy naaw loolu ay nax la te nax yooyu yëpp journaliste yi ñooy complice bi bi nga xam ne ñooy dimbali état bi muy am Pape Alé Niang nag gis naa journaliste yoo xam dañ koy jéem a enfoncé gis naa kuy jël affaire war warlu chal xaw ma nan mooy américain boobu ñu doon jàpp fan yële kooku du ab journaliste investigation kooku mm. consultant la ci euh, consultant la ci kii Amérique ITV mm. e la seetaane waa ko mu koy la woon ci état Amérique mm. dem ba am ay xibaar jël ko di ko jaay riche yi di ko génne état bi bëgg ko jàpp bëgg ko rey mu daw dem riche mais journaliste rek bi génnee xabaar barki démb quarante cinq milliards armée yi ndaw su tubaab ko fi génne mi ngi fii kenn am na droit génnee bépp xabaar bu mu am parce que investigation bu ñu koy def li nit ñi xamut nga leen wax. mais bu fekkee journaliste mooy li nit ñi yendoo xam tey journa euh, Sonko doon na def ab ndaje tey ci suba loolu kay du journa du xibaar. lii xibaar mooy nga ñëw démb na leen ko tey dana wax. Hmm. mu ñëw am loolu moo lay jox crédibilité ñoom Babacar ñoom ñëpp boo gisee leen topp dañuy jékki-jékki Adji Sarr daw kenn yëgu ko ñu ñëw ko nit hmm. mais loolu mooy mooy li li li li liggéey bi. dégg nga hmm. mais gis naa ndaw soo su nekk TFM moom mel na seede bu xoosu toogal la ah, seede bu xoosu boobu rek. moo ciy bu xoos bi rek ki naan ah. waaw. ah ay studio ah, mooy seede bu xoos bi. waaw waaw arrière ak arrière waaw boobu noonu. gis naa ko mu naan ay journaliste investigation amul daan ne Pape Alé dafa faral Sonko. Hmm. looloo tax daanaka bëggu cee jàpp. Hmm. ah gis nga faral Sonko Pape Alé Macky Sall la njëkk a faral. Uh-huh. parce que Macky Sall Pape Alé Niang xeexal na ko guddi xeexal ko bëccëg uh-huh. Idrissa Seck mii Pape Alé xeexal na ko guddi xeexal ko bëccëg uh-huh. Khalifa Sall man damaa defe woon ne man ah Khalifa Sall ak ba ak ak Pape Alé moom am na leneen lu leen liggéey lu bokkut ak jàppale kese moom même man li may xam-xam Pape Alé mu joon na ma yaakaar ne yëf yi rax na te bi mu génnee gis nga waxatul ay waxam sax pare na ci Pape Alé dafa cohérent tey jii Sonko fi nekk muy wax mu koy waxal parce que dañ koy teg insistance bu fi Sonko toogoon tey tey tey tey tey jalgati tey dana dégg Pape Alé Mm-hmm. dafa cohérent bokkut ak ñooñu ma xam dégg nga mm-hmm. bu fekkee nag bëgg Sonko deli la kon mm-hmm. bañ Sonko tamit normalement daa war a doon deli waaw te moom wóor na ko wóoral yàlla buy wax ci Sonko sax day lux ngir bañ gum ko bañ ba pare bëgg na day analyser dem na ba démb mu àgg ci naan bu ko kenn fal man nii ñuy tuumaal naan damay jàppale Sonko man mosoo dégg ma naan fal leen Sonko waaw jël leen Sonko jox leen Sonko réew mi da koy defar wala nanga ma naan mosoo leen a dégg ma wax Mhm. àgguma foofu quoi mais bañ nit ba àgg ci naan non bu leen ko bu ko fal mhm. loolu dafa ëpp journaliste yi nag mhm. temps bi suñu bàyyee seen bopp di neexal Macky Sall ak ba ba ba ba ba ba doole. waxuma la dara patron de presse sax duñ leen respecté ti. danañ fi gis journaliste bu jaay doole bëccëgu ndar ak kàmm. nga ba ci benn bi ci des mooy Pape nyek, liñ xam nga ñeeg. ñeeg waaw mooy enfoncé mbëkk rek dem. waaw parce que Pape Alé bu dee document boobu ñuy wax mooy mooy Oscar Seraya bi. waaw publier wu ko. Mm-hmm. njëkkee wu ko publier. bu dee affaire sapeur pompier bi. njëkk mm-hmm. ko publier. Mm-hmm. oto yam publier woon ca Facebook am. naam xool leen jëndaat nañuy matériel loolaa naqari gendarmerie li ma jàpp. ñu woo ko waaye loola ni ku luñ mën a téye nit. ñu dem wiiri ca document bi document bi nag bala ñu cee jàpp Pape Alé. waaw dañoo war jàpp Sonko ba pare. voilà. mais ndawus tubaab su xees soosu mun ta nekk fii est-ce que mas ngaa gis benn tubaab hmm. buñ mas a jàpp ci Sénégal wala ñu koy indil problème parce que da nga fay joxe benn xabaar Sénégal rek ngay gis ab sénégalais ab journaliste mais yow ak lu mën a xew sax dimanche hmm. ah nga nga dem liggéey nga nga dem nga bàyyi nit ñu ñu noppale mais nga fekk nit mu nekk ci pla dimanche di defar oto nga fekk ko fi ko kidnappé mel na kuy jàpp wëyi loolu lu a ñàkk la maa ngi joxaat sama bopp man bépp combat bu ñu woote ngir génnee pap Alé Niang ci kaso bi maa ngi ci biir d'accord voilà